tay arrestation yaa ngay gën di uh, continuer ci biir réew mi uh, bi la nak kili di uh, Cheikh Bara ndjay nekk chroniqueur wal Walfadjri TV mom nak lañu tek loxo jamono ji mom nak ci jamono yele ñu daal di génn nañ fi app wotom bu wex nekkon 4-4 Ford ci buntu kërëm lañ ko fekk daal di koy taal mu daal di jeex tak bo mom nak mu ko nakar lu waye nak jamono ji may wax ak yeen daal ña nga xamantene nak ñom wa sécurité urbaine daal dinañ koy euh, teg loxo moom Cheikh euh, Bara Ndiaye nekk euh, chroniqueur ca Walfadjri gannaaw ba nga xamante ne nag gis nañ yenn ci ay arrestation arbitraire jamono ji nag gis nañ ne daal fii ci diwaanu Sénégal gis nañ ne daal ab dictateur wala sax ab dictature la ñuy tund ndax gis nañ ne à tout moment mën ngaa yeewoo fële ca diwaanu commissariat central yi nekk ci biir réew mi waaye tamit à tout moment mën nañ la fekk ca biir kër daal lay bindal la nga xamante ab arrestation la wala sax duñ ko notifié duñ def dara dañuy ñëw rek ne la ah, topp ñu nga daal di jóg ñu daal di lay yóbbu ah, Cheikh Bara Ndiaye nag li ni mel moo ko daal di ah, dal ndax gis nañ ne ñu bëree bëri daal loolu rek la leen di daal di def waaye nag arrestation yi moom a na trop jamono ji may wax ak yéen ci biir réew mi gannaaw ba nga xamante ne nag ab tension politique da di nañ a nemmeeku waaye nag yemul rek ci ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy sénégalais lamdaay waaye nag muy wala muy ab technicien des médias waye nak ak luñ ci munti don rek arrestation yi mom gis nañ nga xamantene eh, eh, eh, nak ñom ñoy défendre droit de l'homme wala sax wa société civile bi diko ko bu baax baax ndax gis nañ ci biir mi jamono jile ci Sénégal dal nga yéwo ji fa nga xamantene nak mom moy fele ci diwanu rëbës wala sax ci commissariat central mo gëna yombu waye nak kini disiak di Cheikh Bara Ndiaye ak num ci mënti don ap dina daal di samp ana yel motif moo tax ñu daal di koy a jàpp wala ci yenn condition lañ ko daal di jàppee dinañ leen toppal bi information ba am ci la nga xamante ne nag moom la wànnee ko di mujjee ki bëtam muy Cheikh Bara Ndiaye nekk chroniqueur ca Walf